mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen tey nag bu ngeen gisee fi ñu taxaw ñu ngi buntu arène nationale du làmb fi am nag ñaari mbër bëre wuñu waaye li fi am ku ne xam ne ne bureau CNC bi yore lamb fii la nekk li ko waral nag tey ñu ñëwaat fi mooy Equivox ginnaaw bi mu tëggee samedi làmbam fa la Vox naa yaakaar naa Tyson 2 franc bëri nañu ak xale ca waroon bëree jël la am na combat combat ya neex na na si jàmm mais da am combat boo xam ne tamit amateuru lamb yi dañ ko doon xaar monde lamb di ko xaar muy Mama Lamine Garga 2 yàlla dogal Garga wala boog di moins Mama Lamine ñu ne dafa am gaañu gaañu ba tax combat bu mujj ko mën a bëree léegi nag bi loolu passé waa Vox Arena ñëw pour régulariser combat bi yaakaar naa ne pour jàpp datu combat boobu parce que yéen tëgg ren defe naa ne Aline Badara Diouf DG Vox Arena mu ngi taxaw Euh, Basirou Baba suñu papa mu ngi taxaw yore Garga 2 suñu papa Max Mbargane ah El Hadj Maguette Mbengue bu la neexee defe naa noonu mooy tur wi mu ngi taxaw waaye fi ma. wala nga ne El Hadj Maguette Lo. El hôpital ba bokk turandoo. Maguette hôpital fu mu ne. Linguère hôpital bi amoon coow lu coow liir ya fan yee moom ñoom ñaar ñoo bokk turandoo moo ko. xam nga père Max de dégg naa ko mu naan xanaa damaa bëgg waa kër garga de jàpp ndax ni ma ne màggat mbeng <laughs> mais père maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. maa yaa ngi am jàmm. rek bu baax. mais dañ lay masawu wala sax dama leen di masawu parce que muy yow muy père Max muy waa Vox Arena Adeline Badara defe naa ne ah samedi donte lamb ji am na jeex si jàmm waaye tamit am na combat boo xam ne sa mbërën ko doon xaar mbëru père max di ko xaar Aline Badara doon ko xaar amateur lamb di ko xaar mujjul am muy Mama Lamine Garga 2 yàlla dogal na loola moom passé na gaañu gaañu moo amoon tey bi mbir yi passé waxtaan nañ déggoo ñëw régler sa combat bi yaakaar loolu am na fi nekk nii. waaw am na parce que promoteur bi ñëw na toog nañu waxtaan nañu juboo nañu ci pour defar ndax nun làmb defut wutatun fi dara lu may defar rek lañu fiy nekkee defar nañu combat bi ci jàmm defar nañ ko ci salaam amul benn coow amul xëccoo amul dara signewaat nañu combat bi nii pour le vingt et un août waaw muy doon bésu samedi waaye vingt et un août bu soobee yàlla nañ ko fekk de amin ci barke sëñ Bamba mu mel ni kere laaj naa la nga ne ma lii du lu bees ci yow parce que lu leen dund ko ci làmb mbër préparé na combat ba ci bisu lam ji sax bëri wul kon defe naa loolu yàgg maanaam nekkul première fois muy am fi mais mais bi yoon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yeggaleeg jàmm kenn bañ a ñëpp fekke ko te tal ko yaakaar naa ne fi mu nekk nii loolu mooy waaj kàddu gi ci des waa euh, li nga wax dama lay wax amin rek lii ñu jëm nii euh, yàlla nañ ko yàlla ak yonante ba nun ñëpp ñu fekk ko muy journaliste bi muy Equivox bi tëgg combat bi muy ñaari mbër yi di ñaari menacé ak amateurs yi ñëw di seetaan si lamb ji ak sénégalais yëpp ndax lamb sunu powum cosaan la lii nga wax ni sànq lii mosu cee jóg yàqu-yàqu ak gaañu-gaañu lu mosul jóg ci lamb te du ci jóg mukk yal na ni ñaan yàlla bu amee mu bañ a garaaw bañ a métti mais lii mosu fee jóg te yaakaar naa ni nag euh, bii nu jëm nii nanu ñaan yàlla ak yonent ba mu àggale ko ci jàmm ñaari mbër yi ku ne am jàmm ñu euh, promoteur bi am jàmm ñu bëri ko ci jàmm ak salaam ki walla walla yàlla war a jox ndam mu jox ko ndam te yaakaar naa Garga 2 la yàlla war a jox ndam. Ah, est-ce que liggéey na lu ko war a mën a may ndam. est que Garga 2 man na ci mama dara it nag père. waaw liggéey na lu ko war a euh, jox ndam kooku du du du du lu may war a wax ci télé bi ni ah. parce que man du ma entraîneur damay ñaan rek. Ah, da nga ne moom la yaakaar nga ne moom la yàlla war a jox. yaakaar damay yaakaar boo li nga ñaan. waaw damay ñaan rek moom la ma yaakaar. waaw moom laa bëgg. yaakaar nga ne Garga 2 moo war a am daal. waaw laa xalaat. lu nga xalaat loolu. rafet njort. ci mën a bëre. rafet njort. père Max moom loolu dina ci tontu père maa ngi lay nuyu man day tur sax waru mu woon yegg waa naa ci de. non loolu moom euh, dañ koy waxtaanee rek di ree ne ñëpp xam nañ ne mën nañ laa tudd nañ laa sant <laughs> mais li am solo rek mooy di santaat yàlla bu baax. boo gisee mu demee nii c'est juste làmb bu jàllee combat bu mag day am coow report yàgg na am ci làmb sax te du am détail yii mu am mais bii li ko waral mooy ñaari mbër yi ñoo toll noonu dañuy ñaari mbër yoo xam ne làmb daf leen a bàyyi xel ñuy ay espoir yoo xamante ne nii donte garga moo jiitu tuuti mais écrit yi ñu ne ak gox yi ñu ne dañ leen a bàyyi xel moo waral report bi am ku ne di ci wax xalaatam moo lay wane ñoom dañoo yor dayooy mbër yu mag comme ñëpp ndax bu ñu reporté ci semaine bi yàlla def amul tey ñu taxawaat jàppaat date pour rassurer nit ñi ne du ci coobare promoteur bi du ci coobare mbëri yàlla moo ñëw ak dogalam ndax Mama Lamine nee na woon le 9 bi sax du ko reporté ba waxtaan ci ak promoteur bi yàlla def na le 19 bi euh, antuwul looloo soob sunu borom mu war a def open press ñu yëg ne dafa am blessure ci contact am ak Siteu bëggoon na ba xale yi yëg ko ba ba ko jotee nag laa ko ne loolu c'est trop risqué nañ dem lu ñu yoon may mais pour ñu xam ne li waral tey mënoon nañoo jàpp date mais buñ ko régulariser c'est parce que ci période bi ñu waroon a régulariser ci la lii am moo waral tey rek ñu mën a ñëw présenter suñ médical le promoteur jëlaat beneen date pour sauver journée bi au moins ñoom ñu continuer seeni programme mais bu dul woon loolu bu doon dañ ko régulariser dañuy dem ci médecin wu CNG bi ñu bindal ñu guérison ñu indi ko doog a mën a jëlaat beneen date xam nga leeral baabu da koo tënk rek mooy suñu kilifa xam na lépp mais dañuy leeral pour ñuy seetaan pour ñoo xam ne amul tricherie amul dara moment période bi ñu war a régulariser ci la lool am mais pour respecter promoteur bi am na contrat bu ñu signé woon ak promoteur bi ci euh, fiefam moom dañ koy présenter suñu médical mais pour jëlaat beneen date nag. su boobaa du jaraat nga wit guérison tànn nañ date boo xamante ne balaa booba xalaat nañ ne suñu mbër dina wér péng ba mën a mal kombam ñu xaar nag la jour ji yàlla may ñu ci ndam comme ni baabu ñaanee rek jaam ñaam ñaan jaam bu ne sañ na ko mais ñi ngi ñaan bu bés baa yàlla ànd ak ñun jërëjëf Babacar. am na euh, père jërëjëf nga wax waaye am na ñoo xam ne dañ ci doon am xel ñaar ñi naan maam euh, gaañu na ñi ne gaañu coow li bëri ci yow defe naa yaa ko yor te defe naa ne li nga wax léegi daal mel ni dëggal nga ne moom ci contact bu mu doon def ak Siteu la amee gaañu gaañu ci loxo la wala ci tànk la fan. non ci tànk la mais amuñu intérêt ci di reporter loolu dul wàcc mayu leen ñu soon seen xaalis de te dañ koy bëree. waaw doo ko bëree wàcc dem witi leneen loolu détail la nee naa la naa dimension mbëri moo toll noonu. jeex na toujours ñu reporté fi làmb comme ni ko Baabu waxee te doo am coow mais boo reporté combat mu am coow rek daam am ñoo xam ne donte journée bi lépp nee na mais am ñoo xam ne combat boobu moo leen yitteeloon dayo combat bee toll noonu maam am na problème ak waa Equivox ne day bëre force la neuf bi duñ ko reporté ma ne ko maama dix jours jarul xuloo te yow ñi say frère lañu wañaar loxoom mais yàlla yàlla la soob dogal yàllaa ko yor su boobaa nag détail kenn mënta ñàkk làmb égal coow làmb day ànd coow mais na rafet rek kayit nag ñun buñ sañoon ku tëgg làmb jëriñu buñ sañoon ku tëgg tëggaat du doon tëggum dënd ak seemi neex benn xari benn baabu mi day futti mbubam jël ménager ki teg fële di leen jàppale pour ñu réussir seen journée man noonu laay def ci ñoom kon amuñu intérêt day looloo tax sax ñu jógaat nii ne nañ profité balaa dat yee jeex ñuy dem ay novembre ki décembre ñu am beneen date au moins pour ñu sauver situation bi ndax ñoom ñi ngi doog a ñëw buñ sa ñoon dañuy tëgg tëggaat waaw loolu mooy li am. kon léegi leer na ñaari ménages yi dégg ngeen li ñu wax dégg ngeen li suñu papa Bassirou Babou wax ak suñu papa Max la mu tontu léegi la promoteur a ngeen ni Aline Badara defe naa kon léegi euh, waxtaan wi mat na wax ji jeex na mooy que ni incha allahu rabbi vingt 21 août di tombeek samedi ci la Mama Lamine ak Garga di bëre fii ci arène nationale régularisé nañ ko fekkee te tal ko looy wax sa première réaction Alioune Badara en tant que des Evox Arena. waaw bisimilah rahmaani rahim Babacar euh, gannaaw bu ma nuyu sa caméraman euh, maa ngi nuyu sama père Max ak père Babou di leen sant bu baax di leen gërëm voilà donc euh, comme niñ ko waxee lamb ji actuellement signé nañu régularisation bi pour le 21 août samedi. donc loolu mooy li nga xam ne ni moo ñu fi dajale tey ñu ciy sant yàlla bu baax nag yàlla def na comme ni ko ñëpp gisee euh, amoon na changement euh, première fois le 9 bi ñu yóbbu ko le 19 le 19 ñëw yàlla def Mama Lamine blessé donc li ma leen waxoon keroog moom lay waxaat tey nit dangay def li nga xam ne nii moom moom nga war a def muy li nga xam ne mooy mooy yëfu nit li ci des nag yëfu yàlla la ñu bàyyi ko ci loxoom moom moo def combat boobu amul woon. donc nag alhamdulilah rabil alamin tey biñ fi dajee régulariser ko jàpp ko le 21 donc loolu noonu vraiment ñu ngi ciy sant ñëpp ah di ñaan nag yàlla yóbbuñ ci ak jàmm te kenn ku nekk rek ah nga ñëw fa ak forme bañ am benn blessure bañ mun a euh, jàll ci journée boobu. mais tey yéen ñi euh, nga xam ne dañu taxawal combat bi ci seen xaalis mois d'août ku ne xam ne ne entre août ba septembre moom day taw. yàlla nañ ko fekk rek taal ko est-ce que yéen a ngi nawet boobu tamit ci taw bi wala du ci yàq. waaw me man taw bi sunu borom a ko yor le 29 am na komba rëg-rëg ci lay daje guy gi le 22 bi mooy galaawu mooget boobu taw danga koy baay sunu borom bu xëyee di taw cas de force majeure la bu ñu taw fekkee ci biir làmb ji dañuy bëre mu jeex ñu ñibbi bu ñu demee sotteekuwaat beneen ndox rek looloo xew loolooy am ci làmb nawet. dëgg la dëgg la Babacar comme comme ni ko per waxee rek man mii sax je me souviens yàgg naa fi setaan ay combat gis muy taw donc taw dafa dara xam nga soo gisee ñu ñu daje fi tey waxtaan euh, ba déggoo ci def combat bi le 21 dafa doon ne bi dafa yàgg depuis pratiquement juin daaw lañ ko taxawal donc buñ ñëwee ba toll fii yàlla def lim def donc munuñ rek lu dul waxtaan suñ biir jubo a ah, def ko te jàll ci leneen. parce que loolu dafa gën ci Equivox gën aussi ci mbër yi nga xam ne ñoom dañoo tënku te bëgg nañ vraiment ñoom ñu tënkeeku nag dem nag uti leneen loolu moo tax daal ñu ne vraiment ah nañ ko def te comme li nga laaj taw moom ah yàlla moo yor taw donc am na combat yoo xam ne gannaaw le 21 après le 21 lañ ñëw donc foofu je pense que problème war si mën a am quoi voilà bi ci des amoon ngeen ko parce que euh, su ma jumul Noiro ak Moustique waroon nañoo bëre Noiro am blessure xam nga combat boobu comme li Père Max wax déggoo ah donte ay mbër lañu mais xëy na coow la bëri wu am na beneen xale bu waroon bëri fii kera euh, tamit combat am amul mu mel ne kon yéen a ngeeg yeneen combat yoo xam ne tamit mën nañ ci jàpp pour bés boobu. waaw effectivement y a Moustique Noiro ñoo xam ne aussi waroon nañoo bëri ci journée bi mu am blessure am na aussi jëngal ak euh, boy puy puy puy de waaw waaw boobu aussi amoon na blessure defe naa ci côté jëngal. donc yooyu yëpp euh, ay kii la combat yoo xam ne day ñëw day bokk ci journée bi rek ñu complété ko ak euh, yeneen i combat incha allah waaw. kon euh, ren Vox Arena bu jógee foofu day maanaam balaay loolu dina fi taxawalaa leen wala day nekk ci journée boobu rek. non Vox Arena moom dafa jóg pour liggéey dafa jóg pour liggéey liggéey nag doone fii lay yem donc buñ paree ci combat yooyu tamit bu mbëri jàll ci leneen ñun tam dañuy jàll ci leneen uti leneen luñ taxawal rek waaw parce que liggéey la dañuy liggéey. voilà donc euh, Vox Arena la xaar leen ko. samedi passé am ngeen satisfaction seen journée bi ngeen génne nii samedi ji wax si. waaw sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax xam nga journée boo xam ne euh, moom it amoon na coow ñu dem ba la veille mu am ay spéculation ci ay réseaux sociaux ak affaire yooyu objectif bi moo nekkoon vraiment ah ñu fexe ba journée boobu am euh, sur le plan organisationnel bëri yi combat yi yi fi am gis nga ko bëri yëpp a gaaw neex donc loolu moo nekkoon objectif bi. donc mu nekk entrée Vox Arena ñu koy sant yàlla bu baax nag di ñaan nag suñu yeneen journée yi di ñëw ah yàlla gën koo def mu gën a neex ah gën a baax voilà donc mais fii moom bon sant nañ yàlla bu baax a baax ci journée bi ni mu demee suñu entrée la woon donc réussir nañ ko donc alhamdulilah. lu ngay wax askanu làmb. askanu làmb di leen jaajëfal. rawatina les promoteurs yi nga xam ne seen ay nattaango lañ ak képp ku yëngu ci làmb. waaw di leen sant bu baax parce que vraiment euh, lamb moom euh, dañuy wax chaque fois coow mais coow yàqu ko. waaw parce que nit ñi aussi ay famille lañ ñoo bokk ci benn liggéey donc foog ñuy waxtaan lépp loo ci gis rek ci waxtaan lay mujj donc promoteur yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ah yi jàpp nañ ci combat bi taxaw na ci xam nga ki toog ba ngoon jox sax mu ñëw dugg ci arène bi taxaw sawet rek kooku jàpp na voilà donc loolu daal moo am solo mu ñu xam ne rek ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñu ñu am jàmm ànd liggéey ku nekk rek bay waaram ah wërsëgam rek la ci mën a lekk donc loolu daal vraiment moom laa bëggoon leeral waaw waaw kontaan ci yow Babacar